mbokk yi gannaaw jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci at mi ñu génn yemook yóbbu askan wi ñu dem amal seen umra ak ziar seen agence de voyage bi ngeen taamu di Safir service delsiwaat na di beesal kóllëreem ak yéen ci dem amal umra ak ziar fële ca Medinatul Munawara li ni mel ñu tëgg ko ci ay départ yi nga xam ne jàpp nañ ko ci weer wu nekk seen kër gi di Saphir Service di leen gunge ak ay guide religieux yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi ni mel ay guide yu professionnel yéemut foofu ndax di dina leen jàppal tamit ay logement di ay dëkkuwaay yi nga xam ne yu bakkane la fële ca Médine ak ca Makka ngir ay xibaar yu gën a yaatu mën nga leen a jege fële ca Kër Massar unité 4 villa numéro 912 dendeek plateau médical Serigne Saliou wala nga jokkoo ak ñoom ci 77 116 78 78 mën nga jokkoo ak ñoom tamit ba léegi ci 78 186 71 71 seen kër gi di Saphir service di leen gunge tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci jënd billet d'avion waaye tamit ci location ndaamaar ba ci calcul ci li nga xam ne dafa jëm ci héritage ca nam dëppoog ak l'islam Saphir service yéen la fi nekkal jafe-jafe ci dem amal umra ak ziar jeex na tàkk ak kër gi di Saphir service. Home Choice Sénégal mooy këru ouvrier yi mooy këru professionnel yi. képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier da ngay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci adduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse perceuse visseuse wala lan Total suñu adresse mi ngi nekk 82 avenue Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ci Mbour Tivaouane Pikine Touba Kaolack mais aussi à saint la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jagleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ci feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ak laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine عزمات alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ni yéen ngi ni topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak seyxana docteur Mouhammad Ahmad Lo hafidahullahu waraa tey ji bisu àllarba ji ñaar fukki fan ak ñaar ci rabiul awal mille quatre cent quarante quatre tombeek dix neuf octobre deux mille vingt deux moo xam ñu ni topp fii ci biir senegal wala ci bitim réew ci continent yépp ci Europe ci Amérique ci Asie ci Afrique euh, ci Australie ki yeneen yi ni mel ñu ni topp ci leeral FM bi ci Louga wala keppaar ga ca kawlax wala salaam ba ca Mbàkke wala leeral ba ca Podor wala leeral ba ca Ziguinchor ñu ni topp ci réseaux sociaux yi moo xam WhatsApp bi la YouTube bi la Facebook bi la ak yeneen yi ci des moo ñu ni topp ci dégg diine xam sa diine xam lu sa diine dermal lo officiel wala sax muy groupe bi fatawa soppee docteur Mohamed Ahmed loo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci santeni santeni groupe yi nga xam ni fala fatawa di jaar ñu ñaan yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko ci bisu tey bi jazakumullahu xayran inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 danoo buñ la nuyoo yaa ki nga nekkee ci xarala gi di leen wax salaamaaleykum kon bisimilah ñu daal di jublu ci liggéey bi. jazakum allahu xayra baarakallahu fiikum cheikhana bi kii nee na moom chauffeur benn ministre la ñu nekk fee ca jam ñaajo waaye nee na yeesa ñetti ajjumaa ngi nii fu mu waaja ba toog ci jumaa ji di xaar xutba rek ministre bi woo ko ni ko dafa fu ñuy dem ñenn nag mu am ci njàqareb xol mu ni daal nu muy def sama chauffeur la loolu mooy liggéeyam alhamdulilah xam naa ministre am boobu bu fekkee a jullit la te liggéey ba muy liggéey nekkul lu jàmp loo xam ne lu jéggi dayo la de la gënoon mooy mu ñëw julli moom ajjuma ba noppi door delluwaat ci ay su fekkee ne lu mel ne lii mu wax daa nar a continuer moom sooy boobu mu seet beneen liggéey ndax ab jullit moom du bàyyi jullit àjjuma ngir ab liggéey su fekkee nag dafa am fan yu gaar yoo xam ne dafa nekk ci benn urgence boo xam ne moo tax ministre bi di génn waxtu woowu tam wóor ko ne loolu day jeex xëy na lu mel noonu dana ko mën a toléré eh, noonu mu ko waxee ab diir ndax tardewul àjjuma ji ci tànnu boppam lu gaar la su boobaa loola mën naa bañ a àgg fenn fi ci gravité waaye su fekkee lu nar a continuer la nag kooku moom sooy ba mu seeti beneen liggéey wallahu taala alam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh soxna si nee na moom karaw boppam bi dafa dafa xaw a daggatoo daal tolloowul mu ne ndax dina dagan ci moom mu kub ko ba mu tolloo mu góor ñi di watoo daal noonu ba mu tolloo alhamdulilah waaw kawaru jigéen gu jekkul de mu jekkal ko yu gudd ya mu wàññi leen loola moom dara nekku ci kenn terewu ko de naam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na moom ajoon na màkka waaye nee na ginnaaw gi dafa def bàkkaar bu rëy ndax nee na dafa njaalo nee na nag wax dëgg yàlla bépp xeetu tuub nee na def na ko te metti na ko loolit mu ne nag dafa bëgg a ajiwaat ndax léegi day ajali baayam bi nga xam ne mosu woon a aj te faatu na wala day ajalaat boppam ndax euh, bàkkaar boobu mu defoon alhamdulilah kooki aji ba ñëw def bàkkaar bu mag di wax ni tuub na ko liñ koy xamal mooy bàkkaar moom ku ko def boo ko tuubee te tuub ga dëggu sunu borom tabaraka wa taala jéggal la ko ñu wax ne walladina laa yadcuuna maca allahi ilahan axara wala yaqtuluuna annafsa allati xarama allahu illa bilxaqi wala yasnuun wa man yafcal dalika yalqa asaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyamati wa yaxlud fihi muhaana illa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixa fa ulaika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuuran raxiima borom bi tabaraka wa taala na ña doon bokkaale di ñaan ku dul yàlla ña nga xam ne dañoo rey bakkan ci lu dul dëgg ña nga xam ne dañoo njaaloo ñooñu ñëpp seen bàkkaar rëy na te mbugal muñ ful moo leen di xaar lu dul koo xam ne nag nee na dafa tuub boole ko ak di jëf-jëf ju baax ñooñu borom bi tabaraka wa taala nee na yemul ci jéggal leen waaye seen jëf yu ñaaw yi ñu defoon dañ koy soppi ay jëf yu rafet ñu am ca tuyaaba sunu borom tabaraka wa ko am yërmande la ak jéggalaa kon la kon moom bu fekkee ne wóor na ko ne tuub na tuub bu rafet dafa sëtul yéene dellu ci bàkkaar bu mag boobu yi def na li ko war aj ajja nag jotewul dara ak lool yi mu def su ko tuubul woon it teewut moom aj ji lislaam sàkku ci moom mais su amee alal am kàttan mu dem aji ginnaaw moom dem na aj ba ñëw matal na ay ponkama ci sartam kon ajug lislaam moom aj na ko ala kulli xaal moo xam gannaaw bi lu mën ci bàkkaar rek lu mu defut ñoo mën a doon rek moom aj gaa fa ñu bari nekk seen xel mooy aj moom pour dindi bàkkaar doom nga ko tax a jóg déet day farata joo xam ne jullit bi da ko war a def su ko mënee ni la julli ware parce que ware la noonu yeneen war la aj itam soo ko mënee noonu la la ware mu bokk nag ci ay njëriñam mooy day euh, dindi bàkkaar day far bàkkaar loolu ci ay njëriñam la bokk waaye lenn lenn njëriñ la ci ay njëriñam ñu bari nag dañoo yaakaar ne rek moom saaboo boo defee bàkkaar ba mu bari daal yow jëlal su rek dara dem aji su ko defee boo demee ñu fab say bàkkaar boo dellusiwaatee nga nekkaat sa la nga nekkoon mbir ma moom demewul noonu ala kulli xaal tuub moom da ngay dogu ne li nga defoon duutoo ci dellu mukk waaye nuur ci bàkkaar ba noppi jàpp ne da ngay jaabante di aji bàkkaar ba di dañ moom loolu mbir ma demewut noonu ku tuub tuub gu dëgg lu ñu illa man taaba wa amana wa amila amalan saaliha jëf ju baax moo ciy teg ba noppi di defaat su dul noona ci lu rëccut loolu moom borom bi tabaraka wa taala du ko jéggale wallahu taala alam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si nee na mi boroom këram waaye dafay feebar feebar yu bëri dem ci docteur yi ñu ne ko il faut que nga wëlbati sa njurukaay ko moom daal mu ciy laaj benn nee na atub diine ñaareel ba mu ci laaj ay conseil ndax nee na moom wax dëgg yàlla pareegul pour def ko ndax bëgg na njaboot. alhamdulilah li ñu tuddee limitation de naissance limitation de naissance mooy euh, dakkal ak ak jur jigéen ji dootu mën a jur moo xam dañuy dagg jurukaay ga wala dañ koy wëlbati. loola fi muy dagana rek mooy su fekkee ne dundu nit ki ci boppam dafa am menace boo xam ne jàpp nañ ne su ëmbatee bakkanam mën na caa dee loolu nag la koy soxal mooy ay docteur maanaam benn docteur képp du ko soxal ak loo ko wóolu wóolu su xoolee say résultat ba ne la lii moo la war seetal keneen koo xam ne lam xam-xam na ko wala mu ëpp ko xam-xam nga laaj ko te yëgoo wuñ boo ko defee ba muy ñetti yoon ñoom ñëpp benn résultat biñ xool seen kàddu doon genn ah su boobaa nag xamal ne liñ la wax lu dëgër la su boobaa day soo dakkalee njur ma def nga li la lislaam sant soo ci dëgëree bopp nag ba gaañ sa bopp ah loolu it doo yedd kenn nag kum sa bopp ala kulli xaal na xam ne daal dindi gi moom eh, njur ma ba dootu mën a jur lay tax mu dagan mooy day wóor cëng ci yaqin ne moom mi bu ëmbatee ba kanam mën na caa res su ko see wóor nag te am ñu wax ne fàggu li fi nekk moo gën di fàggu ji leneen ba faf ñàkk yaar yëpp jazakum allahu xayran barakallahu fiikum cheikh bi kii nee na dafa mos a coow ak soxnaam mu waat ni ko dootoo ma jëndalati eh, connexion waaye nee na nag ginnaaw gi fu mu fu ko soxna si dem jëndale connexion rek xelam danaan yar ca loola mu ni nu muy def te waatoon na alhamdulilah bu fekkee ne nit ki dafa am lu mu waat mooy giñ ko ne du ko def ba noppi wëlbati ko def ko wala mu waat ne dana ko def ba noppi defu ko su boobaa li ko war mooy kafaaratul yamin dafay leel fukki miskin wala mu wadd leen wala mu goreel ak jaan yett yooyu lu mu ci def rek lu mu ci def rek jaanam dana wàcc wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi soxna si mi ngi woote itali nee daal li muy laaj mooy pose ongle ak euh, yu demee noonu émail yoog yooyu ba ci pose xef ak yooyu yëpp mu ne lu ci atteb sharia mu ne lu ci atteb sharia ndax dafa am xaritam boo xam ne daal fonk na julli bëgg na diine euh, waaye daal toujours day def loolu moo tax nag mu indi ko fataawa alhamdulilah mboole mi ñuy jëfandikoo di ko taaroo euh, dafa am ay tënk maanaam li ñu tudd ay dawaabit yoo xam ne dañ ko jullit bi da ko cee war a xool door koo jëfandikoo ba ci jëkk mooy ndax lii am na lor ci yaramu doomu aadama wala amu ko ci su seetee ba ne loolu amut ci moom benn lor ñi xool ndax am na jeexit bu muy def ci jaamu yàlla gi gum ko mën a yàqal wala munu suñ ko seetee munu koo yàqal genn jaamu yàlla la ca def mooy ñu xool lii fu mu jógee ndax aada ju baax ci jullit la wala aada yoo xam ne du aada jullit su fekkee ne yooyu yëpp mucc na ci nag aada joo xam ne aada jullit la ba noppi yàqalu ko dara ci jàmm yàlla yàqalu ko dara ci wér-gu-yaram su boobaa dañuy wax ne loolu jar naa dagan naa taaroo waaye yooyu bu ci jalgatiku rek dañuy wax ne daganuta taaroo yooyu mu tudd noonu muy yokk ay we ci say we wala yokk ay xef ci say xef yooyu yëpp benn dana am lor mën naa am lor ci yaramu doomu adama ji waaye su amul lor it joo xam ne du aaday jullit yi feneen lañ ko jële kon roy dàq la boo xam ne ci ñeneen la jóge ñoo xam ne bokkul ak aaday jullit yi bokkut ak bu dee nañ fii ci Afrique sax bokkut ak aaday africain yi xam nga ne ay we nga jël ko weer yu mel ne weeri ganaar def ko ci say we mu gudd gudd ay xef yoo xam ne kenn xamut yan façon xef la nga def ko ci say bët yooyu moom nekkul ay mbir yoo xam ne yu taxaw la lañ jàpp mooy baaxut ci wér gi yaram ñaareel ba mën naa jeexit ci jaamu yàlla ñetteel ba aada yi ñeneen la kon loolu moom bàyyi ko rek moo jaaru wallahu taala alam waffaqakum albaari jërëjëf cheikhana cheikh bi kii li muy laaj nee na yàlla subhanahu wa taala lim ni kataba rabbukum ala nafsihi rahma ndax loolu dafay tegtal ni arrahma muy yërmande yàlla da ko bind bokkul ci ay melokaanam alhamdulilah paspasu ahlu sunna wal jamaa moo di borom bi tabaraka wa taala ay melokaanam duñ ay mbindeef ay melokaan day topp waroom borom melokaan wa ginnaaw sunu borom tabaraka wa taala du kuñu bind ay melokaanam duñu kuñ bind moo tax ay ay waxam muy alquranul karim ak yeneen kër yi wàccoon te nekk ci kàllaamaam yooyu kenn bindu leen lépp loo xam ne melokaanam muy ay yërmandeem bokk ci biir melokaan yooyu yi bépp melokaan woo xam ne wuñ koy melale rek subhanahu wa taala woow melokaan ginnaaw xas nañ ko jëmale ci suñu borom rek nekkatul mbindeef ndax melokaanu ku dul mbindeef du nekk mbindeef melokaanu kuy mbindeef nag mbindeef dong la mën a doon moo tax ma jooju yi nga wax yërmande boo ko jëlee delloo ko ci nit nga ne diw sàngam ko am yërmande la su boobaa dañ koo bind bu dee sun borom tabaraka wa taala nga ne am yërmande la kooku yërmandeem kenn bindu ko wala ñoo ne ak sifatu tabiatun lil mawsuuf melokaan day topp la muy melal nu mel rek mu mel noona loolu mooy benn bi beneen bi ci des mooy jëmmi kataba ci kàllaam ak ak ci alquran ak karim sax wala nga ne ci texte alquran ak sunna euh, day ñëw wolof di ko firee bind na ndax xëy na wolof kàllaama yi def mot bind na lay wax boo ne kataba mu loolu manqué ay vocabulaire moo ko waral ci kàllaama wolof wala ñu xam ne bind googu bokkul xam nga ni ki jël xalima di bind bokkul ak ki nga xam ne daa sàkk loo xam ne lu fa nekkul woon la kon xalaqa la mooy ñu firee ko sàkk na su ko defee kataba nag ñu jagleel ko bind na waaye teewul wolof moom yemut ca loola bind dañuy wax ne lii yàllaa ko na ba àgg ci ki ñu bind sax mbindeef la koy tudd muy koo xam ne dañ koo bind kon baatu bind bi moom kenn mënu koo dindee foofu dañ koo jëfandikoo ci kàllaama wolof waaye ñu xam ne bu dee daa jóge ci mbindeef mbindeef moom du bind sunu borom tabaraka wa taala nag dana sàkk dana bind itam kataba nag ci kàllaama arab ni ma ko bëgg a waxee kooku mooy day firi farataal farataal bu fekkee da daf ko bind daf ko kataba mu jëm ci mbindeef su boobaa farataal lay doon ci moom bu ko jëmalee ci boppam nag iltisaam lay doon maanaam engagement suñu boroom tabaraka wa taala lu mu jël engagement ne dana ko def dana ko def la aghlibanna ana wa rusuli bind na ne maag sama yonent danañ gaye kooku engagement la bu jógee ci suñu borom tabaraka wa taala waaye buñ ne kataba ala nag loola foofu loolu rek la mën a firi mu ne kataba rabbukum ala na ci boppam yërmande yoo xam ne daf koy yërëm bindeef yi te loolu nag kenn waralu ko ci moom waaye moo ko waralu boppam bu doon ci mbindeef la jëm su boobaa farataal na lañ koy firee yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun bi tabaraka moo farataal ci yéen koor mu ko farataalee ci xeet yi leen jiitu kon kataba foofu li muy firi mooy farataal na kon daal kuy gàttal wax ji da nga naan kataba suñ ko jëfandikoo mu jëm ci mbindeef la muy firi mooy farataal na su jëmee ci sunu borom tabaraka wa taala mooy sunu borom warlu naa def nangam. rawatina su fekkee ne araf woowu yi dafa jalgatee ci li ñuy wax ala naam jërëjëf cheikhana baarakallahu fiikum waffaqakum allah cheikh bi kii nee na dafa am daal loo xam ne moom la gis léegi jigéen ñi di ko di ko def mooy ku dem bay ba nekk ci biir salle d'accouchement rek day wax naa na ko wool borom këram mu ñëw assisté ko mu ni nag ndax loolu dafa dëppoog l'islam wala l'islam terewu ko wala daal lu ciy atte ci sharia alhamdulilah jigéen ju toll ci di wasin ne nañ ko wol boroom këram mu ñëw fekkee ko ala kulli xaal su fekkee ne borom këram ñëw na koo fekkee maanaam jafewut ci mu amul benn jafe-jafe ci moom ala kulli xaal terewuñ ko ko doonte nag ab teewaayam moom amu fa njëriñ lislaam daal santaane ko waaye tere wu ko it nag ala kulli xaal wallahu alam jërëjëf cheikhana waffaqakum laaj bi mi ngi jóge ci al ustaaz Omar Ba wax dëgg yàlla laaj bi jaar na fi ay yoon yoon am na émission sax boo xam ne spécial aju woon rek la ci wàllu azaka yu demee noonu léegi mu ni ki nga xam dafa amoon ñaari terrain pour doon bëgg après mu jaay ko mu téye ko fi ay at après mu jaay benn bi mu ni ndax da koy génneel azaka wala déet cheikh bi beneen laaj bi nuroog moom mooy koo xam dafa amoon ay terrain lu war a mat fukki terrain mais nag moom xelam euh, doguwul woon ci nii day dem ba mu yàgg mu jaay ko doguwul nii da koy téel njabootam moom daal gis na ko jënd na ko yeesa ah, mu ni xëy na sama njaboot dinañ ko soxla ëllëg xëy na su ma ci soxlaa benn bu ma jaay ma jaay wala ñaar maanaam noonu la ko fa bàyyee ñu dem mam yàgg nag mu jaay ca benn wala ñaar ginnaaw ay at mu ni ndax loolu da koy génneel azaka wala déet alhamdulilah azaka ay terrain day benn borom terrain bi bi mu ko jëndee mu am yaqiin ci ne moom li ci bëgg mooy bàyyi ko fi ba mu mu jaay ko su fekkee noonu la de at mu nekk war na koo génneel asaka moom ndax marchandise la su fekkee ne mat na nisaab la muy jar te lu gën a bari ab terrain moom faaw mu jar lu mat nisaab kon foofu moom noonu rek lay demee saa bu am at matee mu génne asakaam xeet xayma ba na mu toll mu génneel ko deux virgule cinq pour cent su fekkee da ko jënd mu wóor ko ne moom jaayu ko moom caare bi moom jaayu ko da ko fas yéene tabax waaye daa amagul lu mu ko tabaxe su boobaa terrain bu mel noonu asaka waru waaye nag saa bu ko jaayee nag ba mu doon xaalis xaalis bi wëlbati ko am ci loxoom at su boobaa asaka da cee daal di war kon borom ñaari terrain yeeg borom fukki terrain yi ñoo ci yem seeni at du génn mukk ñaari atte yooyu benn mu wóor ko ne da ko soxlaa jaay wala mu wóor ko ne moom mii du ko jaay waaye nag dem na ba mu yàgg am jaay dugg ci ñu foofu jaay ko su boobaa su amee ak ci loxoom ci la koy génneel asaka wallahu taala alam jërëjëf cheikhana waffaqakum allah cheikh bi laaj bi mi ngi jóge Vélingara kii nee na dafa am rappel bu mu waroon a jot mu tollu ci deux millions trois cent et quelques mille ñu génne ci ay impôt ak i taxi jox ko un million huit cent et quelques mu ni ndax kon dina génnewaat asaka wala day doylu rek ci taxe yooyu ñu dagg ci moom alhamdulilah taxe yi ñu jël ci moom ak empo yi loola du toog palaasu asaka ndax asaka dafa am ñoo xam ne ñoom la ko lislaam jox su fekkee jël nañ ci alalam lu toll ne asaka wala lu ko ëpp te joxuñu ko ña lislaam waxoon su boobaa asaka moom génneegu ko li wér mooy la fa des loolu na ko génneel azaka deux virgule cinq pour cent naam jazakum allahu xayra jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na borom këram dafa génn àdduna juróom benn weer ba juróom ñaari weer te moom yëgu ko nee na su ko yëgee naka lay jàppe yidda alhamdulilah ci borom këram génn àdduna te yëgu ko woon saa bu ko yëgee rek foofu lay tàmbalee tenj ba tenjam mat mu daal summi naam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na da doon tuur ndox bi mu paree mu gis man yu génn ci moom mu ne ndax day sangu farata bala moo julli wala alhamdulilah bu fekkee wóor na ko ne li génn man yu la de moom ca farata da koy war waaye nag ndax man yu la ndax man yu moom bu dee génn kenn du ko nattab lépp te génn gu sempale noonu itam di tuur ndox rek mu daal di génn loolu moom ñaari du am am na nag lu ñu tudde alwadiyu nga xam ne ñaare kii tuur ndox day génn léeg-léeg te nuroog man yu lool te du moom ndax bi génn daanaka du ko yëg ndax du ànd ak bànneex lu mel noon nag raxas ba mu set rek moo ciy war daal di jàpp waaye bu ko wóoree ni daal man nii mu ànd ak bànneex moo génn moom kooku sooy ba mu dem sango ji wallahu taala aalam macha allah barakallahu fiikum wa jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana tontu yi leer na nañ yal na yàlla subhanahu wa taala barkel xam-xam bi wéral cër bi sàmm la sàmm sa njaboot sàmm diine ji sàmm jullit ñi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yamandi ba beneen ay bis wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine ta moo di lislaam bi fi aw dundin jullitu yi fi leen maa ngi ci diine ta moo di lislaam bi fi aw dundin jullitu Margi watetijine Samadi l'Islam bi Sidon aw dundin aw dundin Jullitu wisilen Margi watetijine Samadi l'Islam bi Sidon aw dundin Ah jullit farlu leen ci amal gëm gu ci yàlla ta xam xam gu wóor lii di diine te gëm sun boroom xam bu baax diine ji tey ànd bu wér mooy dundin wi ci diine jullit maa woote ci wuy si leen ñu ànd ba am doole jug samp diine bu diine jugee atte réew mi ci yoon jullit yi juboo réew naat wuy jullit wuy la la la la la تماض الإسلام بفيد أو جند أو جند جريت وسيلين ماضي وتفيدين تماض الإسلام بفيد أو جند tasaaroo jullit ñi ci réew meeg feneen te li fi juróom ñàkk njiit gi ci diine te gi ñàkk njiit moo fi jur ñàkk doole te moo fi jur non yi noot nu ci diine te moo fi jur ñàkk a xam ñàkk mu jur fi fi nun topp noon yi ci diine jullit yàlla nee na dee yen jàpp leen ci bum gi di diin yen jullit ànd leen jullit maytu leen xajjaloo ci diine ji man jur ci yeen sun boroom jéppi leen yeen jullit yi ci leen maadi woote la la la la la tamaadi lislaam bi fi doon aw dund aw dund jullit wi fi leen maadi woote ci diine tamaadi lislaam bi fi doon aw dund ah jullit xajaloo gi ci din mooy waral yoonen dañ ci yéen sun boroom sabbi leen jullit seeni noon ànd nan dal ci yéen soril seenu yoon samp seenu yoon jullit seeni noon ànd nan dal si yéen teenu yoon sampu ñoom teenu yoon ah tëral fii ci réew mi nu moom tër yu yi xeex tër yi yàlla fii ci diine tëral ay école yi di yar ñi nu jur xaramal ci biir jàng ak yar ci diine ñu nax bàyyi jël seen ni doom yàq leen ci njàng mu bon mi fi xeex li di diine jullit wéti leen maa ngi woote la la la la la aw doon ngeen jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine sama diine islam bi si doon aw dundin taral attakaay fi ci réew mi nu moom xaramal ci waa réew mi seen atte diine te bur yàlla nee na biir alquraan ku dul atewoo tere bee weddi diine ku tere bee sax ci tooñ tere bee genn diine ku

ba noppi di tër tër yi fi boddi diine mbokk yi gannaaw jéego yu am solo yi nga xam ne def nañ ko ci at mi ñu génn yemook yóbbu askan wi ñu dem amal seen umra ak ziar seen agence de voyage bi ngeen taamu di Safir service delsiwaat na di beesal kóllëreem ak yéen ci dem amal umra ak ziar fële ca Medinatul Munawara li ni mel ñu tëgg ko ci ay départ yi nga xam ne jàpp nañ ko ci weer wu nekk seen kër gi di Safir service di leen gunge ak ay guide religieux yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàll gi ni mel ay guide yu professionnel yéemut foofu ndax dina leen jàppal tamit ay logement di ay dëkkuwaay yi nga xam ne yu bakkane la fële ca Médine ak ca Makka ngir ay xibaar yu gën a yaatu mën nga leen a jege fële ci Kër Massar unité 4 villa numéro 912 dendek plateau médical Serigne Saliou wala nga jokkoo ak ñoom ci 77 116 78 78 mën nga jokkoo ak ñoom tamit ba léegi ci 78 186 71 71 seen kër gi di Saphir service di leen gunge tamit ci li nga xam ne dafa jëm ci jënd billet d'avion waaye tamit ci location ndaamaar ba ci calcul ci li nga xam ne dafa jëm ci héritage ca nam dëppook ak l'islam Safir service yéen la fi nekkal jafe-jafe ci dem aman umra ak ziar jeex na tàkk ak kër gi di Safir service. Home Choice Sénégal mooy kër ouvrier yi mooy këru professionnel yi képp koo xam ni da nga di professionnel di liggéey wala ngay ouvrier dangay soxla outillage ñun ñooy numéro un ci wàllu outillage fii nga xam ni moom moo di ci réew mi ak fépp foo dem ci àdduna bi la marque Total est de renommée internationale lan nga bëgg groupe électrogène aspirateur pompe émergée motopompe meuleuse. perceuse visseuse wala lan total suñu adresse mi ngi nekk 82 la Lamine Gueye téléphone 33 821 45 45 suñuy partenaire ña nga ca Mbour Tiwawan Pikine Talibou Mak Touba Kaolack mais aussi à Saint-Louis la marque Total foo dem ci àdduna bi fekk ko fa ndax qualité jataayu fatwa yow mi am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na Leeral FM jégleel na leen seen émission bi di Al Fatawa fatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures ngeen ci ànd ak al oustaz Abdallah Baba Dieng mu ciy feggoo ak ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ak seen émission bi di al fatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine azamatu yamini law indi umrun yakfini la shartu taali